ما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 auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi hadaana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalaatu wassalaamu ala almabuuthi rahmatan lilaalamin sayidina muhammadin almakin xaamili liwaa alhamdi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sama mbokk yi waa M-Media groupe Nuuru Daarayni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru sell wi ñu nekk eh, nekk ci fan yi mujj yi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñoo leen ci yàlla doole defal tawfiq dañu fekke ko ay déwéni déwén te lépp luñ ci jaamu yàlla rek yàlla nungul ñu jaamu yàlla googee te jëkk gënu ci suñu yëppi rëcc rëcc nag yéen yëg ak yéen yëgut xamak xam ak yéen xamut yéen tay ak yéenu tayut yéenu biral ak yéenu yàllu yéenu nëbb ak yéenu feeñal yéenu def ak yéenu defagut yépp moom borom ak njëggal la ah, am na sañ-sañ ba yàlla nañ ko jéggal bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dellu si rek di leen ndokkeel bu baax a baax di leen niiw di leen ziare di jiital ci nuyoo boobu ak ziar boobu suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, kilifa euh, liggéey bi di ko ndokkeel di ko ziare bu baax a baax di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom di ko ñaan rek mu jot leen ko suñu kilifa yi ndekk ci biir jotaay bi yépp ku mel ne suñu mag Serigne Mbir Touba Moussa Mbir ak suñu mbokk moomu sang bu baax boobu sëriñ Masu jaay moom itam di koy dellu di ko ziar bu baax a baax moom itam di ko gën a bu baax a baax waaye tamit di ziare mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ni ñu ngi ci biir jataay bi yépp rek <laughs> waaye tamit di ziare soxna yi nga xam ni itam ñoom itam ay jàmbaar lañu yàlla dogal ñu seq liggéey bi ñu ne ci biir liggéey bi ñëpp daal ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel tey di ñaan yàlla subhaanahu wa taala muudu ngom mi nga xam ne bii moo soosu liggéey bu sell bu baax bi bu am solo bi moom itam yàlla gën ko jàppale bu baax a baax ba lépp loo xam ne ni rek bëgg na ko ci mu ak jëm kanam eh, yàlla defal ko ca lu kawe njortam nu ànd ko moom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi xam naa ñu ngi ñëwal rek di jéem a tàbbiwaat ci liggéey bu am solo bii ñu yàlla boole te ñu cërale ci cër leenu ci ñuy jéem a tàbbal ay laaj yoo xam ne dañ koy dugal ci biir liggéey bi lu di ci jéem nab na bi di ci jéem a tontu di ñaan yàlla subhanahu wa rek mu gën ñu ci jàppale ba lépp loo xam ne lii jóge na ci suñuy kàddu rek mu doon loo xam ne lu dëppook na mu demee la ak noonu doon neex yàlla subhanahu wa te mu doon loo xam ne lii suñu fajuk aajo lay doon zahir wa batina bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee tey laaj yi fi jotorot rek e, laaj bi ci jëkk mi ngi jóge ci suñu rakk ji soxna Astu Fay ñoo ngi ko ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam wax dëgg yàlla jàmbaar la lool yittewoo liggéey bi bëgg lu baax lool yàlla na ko yàlla doole jàppale ak képp ku bëgg lu baax ak képp ku bëgg liggéey sëriñ bi moom dafay laaj ne dafay faral bu jullee euh, suba ba noppi day jàng qul huwallahu ahadun téeméeri yoon muy laaj nag ndax moom téeméeri qul huwallahu yooyu ñu jàng muy jàng ndax su ko jàng mën na rek su waxee benn yoon bismillahi rahmaani rahim yeneen qul huwallahu yi mu bañ ci boole bismillahi jooju waaw euh, loolu mu koy jàngee baax na lool waaye tamit la gën te gën a pobiyool gën a yaatu gën a baax mooy euh, qul huwallahu ahadun bu mu ne boo koy jàng maanaam nga jiital ja bismillahi rahmaani rahim maanaam mooy gën ndax ay bismillahi rahmaani rahim dong boo ko doon baaxu noonu euh, yool baak xiwal ga day bari lool lool lool rawatina na nga boole ko ay qul huwallahu ahad kon daal saa booy jàng ab lim ci ay ay saar yoo xam ne yi da nga ko jël wala ay aaya yoo xam ne yi da ko jël daal boo ko manee maanaam bu ci nekk rek da nga cey jiital bismillahi rahmaani rahim rawatina nag suratul ixlaas bi muy wax nii moom kon boo ko jàng rek maanaam man nga xul euh, wallaahu aadun bu ne maanaam nga jiital ci bismillahi rahmaani rahim su ko defee noonu moom mooy gën te mooy ëpp yool su ko defee kon daal loolu mu doon laaj ci noonu muy jàng xul wallaahu yooyu muy téeméeri yoon na koy booleeg téeméeri bismillahi rahmaani rahim rek maanaam bu ko defee bu ci nekk maanaam mu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim ba këra limba di mat beneen laajam bi ci toppit mi ngi aju ci lu jëm ci ak julli la muy maanaam lu jëm ci waxtu julli muy laaj bu ama am solo ndax waxtu julli moom dafa am solo am solo nga xam gi dañ ko war a ràññee bu baax di ko bàyyi xel bu baax baax tam ndax loolu yàlla wax ne inna salaata kanat alal muminina kitaaban mawquutan yàlla ne ne julli daal dama ko def loo xam ne lii dama ko farataal ci jullit ñi waaye itam dama ko teg ci ay waxtu yu wér wér yoo xam ne yi dañoo war saabu waxtu yooyu jote rek maanaam yu daal di cay jublu kon di lijjanti wax yi waxtu yi ak di ko jéem a xam da cay am solo lool loolu taxoon xaadimu rasul dañu sonn saasu ne ci ñu war a fonk njaal benn ak waxtu di jéem a góorgóorlu ba julli gu mën a doon bu doy ko farata la ñuy teel ko waajal ba saabu waxtu wa tàbbe rek maanaam ñu man koo dox joxe ca njël njaal benn ga loolu taxam mu doon wax ne kunu ila salaati na li awwalil awxaati aajilina sëriñ Tuubaa dane na ngeen góorlu ba saa bu ngeen yégee ne waxtu julli mi ngi jegeñ ngeen daal di buur daal di koy waajal jëm ca waxtu wa fexe ba euh, waxtu wa rek saa bu tàbbee ngeen mën caa joxe julli googee ngeen farlu ca bu baax a baax kon laaj bi astafay da laaj mu am solo muy day laaj maanaam xam nga julli moom dafay am ñaari waxtu maanaam loolu ñuy wax muxtaar ak daruri muxtaaram julli bu ñu koy wax mooy waxtu wu jëkk wi nga xam ne wi moom lañ gën a tànn nga xam ne boo ci julli mooy ëpp ab yool daruri bi mooy waxtu nga xam ne bii bu demee ba muxtaar mi jeex ñu ne la léegi yi gi moo ci des te mooy waxtu nga xam ne yi moom itam soo ci jullee maanaam dina baax waaye boo julleen ca muxtaar ma lay gën a baax lay gën a ëpp yool waaye ñaam ñoom ñaari waxtu yëpp ñooy ànd nga xam ne ñaari waxtu yu fekk jàlluñu ñoom ñaari ñëpp rek soo julli julli googu maanaam da ngay yéene joxe julli googu teew maanaam da ngay fas ne man daal julli gi maa ngi ko joxe waaye doo fas eh, ak pay waaye nag soo demee ba ñaari waxtu yu jeex muy muxtaar ak daruri léegi julli googu moom bu ñaari waxtu yooyu jàlle moom soo ko julli da yéene yéenee fas yéene fay julli ga maanaam yéenee fay ngay def ndax julli googu maanaam waxtum dem na ba génn kon day am solo ku doon ci ñu rek maanaam nga jéem a góorgóorlu waxtu julli bu ci nekk nga xam maanaam fan la tàmbalee ak fi mu yem muy maanaam lan mooy muxtaaram ak lan mooy darurim bu ko defee muxtaar mi ak daruri moom feeg jeexul rek maanaam di nga mën a julli maanam yéene joxe julli nga la ngay def waaye nag soo demee ba muxtaar ma jeex daruri ba jeex nag su léegi booba moom euh, léegi booy julli yéene fay julli nga ngay def su ko defee ñu jéem a xam rek waxtu wu ci nekk maanaam fan la tàmbalee nga xam ne feeg waxtu woowu jeexut boo koy julli da nga koy joxe ak it fu mu foo xam ne fii boo bu fa àggee euh, su julli ga bu waxtu woo àggee boobu maanaam soo ko julli da fay kon ñu jéem a jéem cee def boo xam ne bi dinañ mën a xam waxtu wu ci nekkam fa muy tàmbalee ak fa nga xam ne fii fa lay yem bu dee jullik suba la waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu fajar gi jotee xam nga fajar ni ko olof de waxa dañ naa njël ak fajar njël mooy jiitu waaye fajar moo ci topp léegi nag fajar googu maanaam saa su jotee rek euh, foofu la waxtu julli suba jote su ko defee euh, waxtu woowu day continuer dem ba kere jant bi di waaja fenk saa boo yégee ne jant baa ngi waaja fenk rek nga gis ne maanaam jaww ji mi ngi leer ceeneeri jant bi di xaw a feeñ rek léegi waxtu julli yu nga xam ne bi boo ci doon julli dangay yéene joxe julli suba ga léegi bu boo demee ba jant bi leer noonu maanaam mi ngi waaj a so euh, fenk daal bu boobaa léegi moom booy julli da ngay yéenee fay ndax moom waxtu yu nga xam ne bii ci nga waroon a joxe euh, jàll na saa boo gisee rek ne maanaam jaww ji leer na naññ nga xam ne fi mu ne nii moom jant baa ngi waaj a fenk rek foofu moom boo fi toogee ba ëgg si foofu ci jullik suba gi léegi soo ko julli da nga yéenee fay waaye li tàmbale ci fajar gi maanaam fi ñuy salaatoo ba kero jant bi waaja a fenk daal foofu julli moom da nga yéenee joxe julli bu ko defee bu dee tisbaar la itam waxtu yu nga xam ne moom lañ ko tànnal mu ngi tàmbale ci boo xoolee jant bi maanaam mu mel ni dafa xaajale asamaan si waaye léegi dem na sax ba ci côté saw gi fela jant bi ëppee nga xam ne boo xoolee dangay gis ne jant bi kat fi mu ne nii mu ngi ci digg asamaan si waaye fi ne nii ci saw gi ci la xaw a ëppee su boobaa rek maanaam foofu la waxtu tisbaar jote su ko defee waxtu wañ ci gën a tànn mu ñu koy wax muxtaar nag day continuer ba boo xoolee sa takk ndeer yow wala takk ndeerab loo gis noonu mu am ab takk ndeer nga xam ne dem naa dem ba takk ndeer bi di yokk di yokku ba xam ne fi mu mën a yem rek àgg na fa su ko defee bu takk ndeer bi eggee fa nga xam ne fii fa la mën yem foofu la muxtaaram tisbaar yem waaye du tere daroor yi ba muy ñaareelu waxtu ba ca toppitam day continuer ànd ak muxtaaram takkusaan ba kero jant bi so su ko defee tisbaar daal su jant bi xaajale asamaan si xaw a rëcc tuuti jëm ci côté saw rek foofu la muxtaar mi tàmbalee waaye itam feeg jant bi sowut moom itam Euh, mën nga koy maanaam boo ko julli da nga yéene joxe waxtu tisbaar wi waaye su jant soo it maanaam soo koy julli da nga yéene fay gis nga ko bu ko defee bu dee tàkkusaan la itam euh, foofu nga xam ne fii fi la muxtaaram euh, tisbaar jeexe fo darureem dugg daruri boobu moom itam day ànd ak muxtaaram tàkkusaan muxtaaram takkusaan moom itam mu ngi tàmbalee ji fi nga xam ne fi maanaam takk bi dem na ba fala mën a yem xam nga ne takk ndeer yokk noonu waaye day dem ba day yem su boobaa bu takk bi demee ba léegi mënatul a yokku bu ko defee foofu la e, muxtaaram takkusaan di tàmbale darurim tisbar tàmbalee fa ànd ak moom ñoom itam ñu continuer dem ba kere jant bi di mboq maanaam di waaj a sonoonu su ko defee takkusaan moom itam fekk jant bi demut bay xonq rek maanaam soo ko julli da nga yéene joxe waaye soo demee ba jant bi bëgg a sonog di xong noonu nga gis ne saw bi moom dafa mokk fi mu su boobaa diggante boobu boo ko dee julli maanaam da nga yéene fay su ko defee gis nga ko tisbaar ak takkusaan daanaka maanaam dañuy daal di duggalante ay waxtu ñoom ñaar dañuy ànd ba dem ba jant bi bëgg soo feek jant bi bëggagut a sonog mën nga ko fee julli julli goo xam ne gi da nga yéene joxe julli ga waaye soo demee ba jant bi waaji sonog maanaam mokk ñoom ñaar boo ci julli su boobaa da yéene fay waxtu wu ci toppit muy timis moom timis moom itam mi ngi tàmbalee ci bu jant bi sooy rek saa boo xoolee rek gis na jant bi moom sono gisatoo ci dara rek foofu la waxtu timis tàmbalee su ko defee muxtaaram timis nag moom dafa gàtt ndax saa boo xoolee jant bi soo ngay dem ba maanaam ceeneeri jant bi gisatoo ci dara rek foofu la muxtaaram timis yem su ko defee eh, darurim daal di continuer ñëm moom itam jëm fajar daal di ànd ak eh, julli dem ànd ànd ak waxtu géew bu ko defee waxtu géew foofu ceeneeri jant bi demee ba suux ba mboq mboq yi gisatoo ci dara foofu lay tàmbalee moom itam ànd ak darureem eh, timis mais su ko defee bu dee ni timis gi la muxtaaram dafa gàtt waaye bula la muxtaar mi rawee maanaam fekk fajar jotagu rek maanaam soo koy julli da ngay yéene joxe waaye su fajar xasee jot nag boo koy julli da ngay fay kon foofu it moo gee muxtaaram timis jeexee fi la euh, muxtaaram euh, gee tàmbalee mu continuer ànd ak darurem timis ba kero euh, jan jant bi waa maanaam keroog ba keroog fajar bi jot maanaam comme gee julli gee la foofu nga xam ne fii ceeneeri jant bi dem na ba jeex na maanaam gisatoo ci mboq mboq yi dara bi jant bi sooyee foofu la gee tàmbalee ba soo xaajee guddi gi ñetti xaaj foofa la muxtaar may waaye darul bi mooy day continuer ba ca fajar sa kon daal mën naa la wax ne la timis ak gee maanaam fekk demoo ba fajar jot rek soo ko fi julli maanaam da nga yéene joxe waaye soo demee nag ba fajar jot ñam ñaar boo ciy julli bu boobaa da yéene joxe su ko defee loolu xam naa ab caqam la lay laaj ci waxtu yooyu xam ne moom bu ci nekk daal bu dee ca muxtaar ma la wala daruri bala la euh, feeg waxtu yooyu jeexagut soo julli da nga koy yéene joxe waaye soo demee ba muxtaar ma jeex na euh, muxtaar ma jeex daruri ma jeex na su boobaa booy julli da nga yéenee euh, su ko defee day aaju nag nga mën a xam euh, waxtu julli yi bu ci nekk fan la tàmbalee ak fan la yem ba booy julli bu fekkee da nga yéenee joxe nga mën koo yéene bu fekkee ne da nga yéene nga xam ne da nga war a fay nga mën koo yéenee noonu beneen laajam bi ci topp nag mi ngi jëm ci cheikhul xadim radiallahu anhu wa nafaana bi barakatihi dafay laaj moom astufay ne ay wirdin kaana yastaamilu cheikh ay ay wirdin kaana yastaamilu walidu cheikh il xadim xabla taasiisi tariqati l muridiyati day laaj ne waajur xaadimu rasul bi awaa sos yoonu murit moom waajuram woowu ban wird la doon jëfandikoo muy maam Mor Anta Sali dañ ko naan kaana alwalidu yastaamilu al wirdal xaadiriya waajuru cheikhul xadim ab ti ak ab xaadir maanaam wirdu xaadir la doon jëfandikoo wa fi xayaati walidihi laa wala yuqiimu bal huwa tawu abihi kal mayyiti bayna yaday raasilihi dégg nga maam xaadim rasul waajuram moom wirdu xaadir la doon jëfandikoo waaye cheikhul xadim ci jamono ji nga xam ne ji mi ngi ko nekk di dund ak waajuram wu maanaam moom taxawutan ci dara waaye tam taxawulutan dara maanaam taalibe waajuram woowu daal la doonoon nga xam ne dafa doonoon ab taalibe boo xam ne bi da ko nungu la noon nungu ba mi ngi meloon ci waajuram mm. comme néew boo xam ne bii faatu na ba nga xam ne bii mi ngi nekk ci diggante loxo yi ki nga xam ne kii moo koy sang noonu la xaadim rasul melan ak waajuram ci jamono ji waajuram jooju nekkee di dund ak moom kon mën nañ ne jamono yooyu moom itam wérdu xaadir woowu kon moom la doon jëfa ndi ko it euh, xaadim rasul euh, yàlla da ko teel a wone lool ba waajuram xam ko ci moom loo taxan dafay wax ne waxat wallahul walidu at tadrisa ne ne gis nga xaadim rasul ci ay at yu teel la waajuramoo seetlu ci moom ab xam-xam boo xam ne bii ak ak mën a jàngale ak ak mën a leeral boo xam ne bii xam na ne yàlla mook ko defal mu daal di koy féetale lépp la nga xam ne lii mooy wàllu jàngale ma nekk nag léegi ne ne fa lama maatal walidu baqiya ala tadrisi sanatan wa ziyada nee na nag njàngale moom mu doon njàngale moom Xaadimu Rasuul yor daara ja bi waajuram yu faatoo daa continuer ca liggéey ba nekk ca lu matam at ak lu tegal ay lu at daal maanaam nekk na ca am at ak lu tegal continuer ca loolee ko waajuram wa doon liggéeyloo te mooy jàngale euh, mu daal koy continuer ba nekk ca lu mat am at lu ci lu tegal summa stawla alayhi sultaanul himmatil aliyati fa aqaama wa xarraka wa sakkana wa daa bi lataafatin ila xaalihi nee na nag jamono yooyu nag nga xam ne euh, himma ji nga xam ne ji maanaam daraja yi nga xam ne yi moom la ko yàlla jox euh, nga xam ne am na beneen jéego boo xam ne bi war na koo dox euh, jëm ci yàlla nee loolu dafa demoon ba yitteel ko lool nekk ci boppam mu daal nag daldi taxaw di yëngal di leeral ay mbir yu bare bare yoo xam ne yii da ko doon junju ci di ko wax ñi nga xam ne ñi ñoom la nekkal lan ngir di leen junju noonu nga xam ne nii moom la ko yàlla def maanaam ngir ñu man koo xam xaadim rasul noonu ko yàlla def beral ko noonu mu mel yàlla ci boppam subhanahu wa taala lam waxante nag yonente ba sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko fas daax bi ma tuumaru mooy ne lii mën a digal yow muhammad te mooy nga woon nit ñi ci ñu dugg ci lislaam loolu mu ne ko yëkkati ko xaañ ko ba ñëpp dégg ko ne ne loolee mu waxante nag yonente ba sallallahu alayhi wa ci zahir maanaam ci lu feeñ moom la waxaat fekk xaadimu rasul mi ci euh, ci secret maanaam kon dañu daal di jàppane yàlla ci boppam moo ko wax digal ko ngir maanaam mu mën a sos aw yoon woo xam ne bii euh, yoon woo xam ne bii wuy beesal diine lislaam ji lay doon waaye loola itam ba mu amee diggante ak boroomam da ko jaarle ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam seyduna muhammad ñëw ci cheikhul xadim ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi yonente bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ci xaadimu rasul ne ko yow daal ñii la ñii nga xam ne ñi ñoom la la yàlla booleel ñu topp la maanaam ñu war laa topp maanaam warul leen a yare ci am njàngale waaye da leen war a war a yare ci ay yitte yu kawe yoo xam ne yi ca leen di jaarale bañ mën a dem ca seen boroom nee na euh, loola bi ko ko yonente bi waxee moo xam ne loolu la war a jëfandikoo ndigal loolu la war a def maanaam euh, dafa daal di ñëw ca mbooloo ma ñëw ca daara ja fañ doon jànge nga xam ne yàgg na koy junj sax di junj ay mbiram nga xam ne dañ ne bu nit ñëwaa di jàng alxuraan di ko tari maanaam mokkal ko di ko tari tari bu baax lool danaan lii de am na solo lool téere bi yàlla bii ni maggee ni mokkal ko ba di ko mën a tare nii am na solo lool waaye dafa am lu ko gën a am solo su masa wax nag ne am na lu gën a am solo ñoom dañuy jaaxale ndax ñoom booba jàppat nañ ne daal mokkal alxuraan ak di ko tari amut leen loo xam ne lii maanaam féete na ko kaw mu ne leen jàng kay alxuraan lu ama am solo la waaye la ko gën a am solo mooy maanaam nit ki jaar ci yor woo xam ne wii su te jaaree di def jaamu yàlla ya nga xam ne yii moom lañ ko sante yàlla dina def ci moom ak leer goo xam ne gii day dem ba xalima ga nga xam ne gii moo nekk ci ca lawxul mahfuz suy bind jëmm jooju di dégg xalima googu ni muy dawee kii kii jën muul di ko dégg ci ay noppam jàkkaarloog lawxul mahfuz nga nga xam ne gii fa yàlla def léppam ne ne kon li alxuraan di baax lépp ak mbogal kon loolu moo gën a am solo ndax ku jàng alxuraan lu mel noonu rek nga bëgg su ko defee loolu mu doon leen ko junju ba yëfi dem ba nga xam ne léegi nag moom lee ko yàlla diggalan ne ko siiwalal sa mbir mi wooteel ca kaw mu daal di xëy benn bis rek daal di ñëw ci daara ji ne leen képp koo xam ne kii daal maanaam jàng rek rek rek maanaam moo la yitteel te foofu nga mën a yem léegi yiwi naa mën ngaa dem su la neexee nga dem seeti foo xam ne fii mën nañ la fay jàngal waaye képp koo xam ne kii nag man yoon wi ma aw maanaam li ma bëgg lii sama yitte mooy sa yitte léegi mën ngaa des fii ci daara ji ñu am ma ànd ak yow euh, bu ko defee ñu jéem a aw ci yoon woowu nga xam ne bii moom la ma sama borom digal nee loolu bi ko Seexul Xadim waxee fa zahabal jullu wa baqiyal xullu nee na bi sëriñ bi waxee loolu nag daara ja ña ca moom dañoo daal di dem ndaxte dañ ne ñoom moom euh, jàng daal moom la ñu xam bu fekkee ne moom jàng amatu fi ñun moom dañuy dem waaye itam ñu néewanoo des fa nga daal di ànd ak sëriñ bi ne nag wa hada amrun min ar rasul sallallahu alayhi wa sallam mushafahatan ne na loolu nga xam ne lii moom la xaadimu rasul wax ne koo xam ne ki jàng dongo lay téeleen moom nga bëgg te ca nga mën a yem mën nga dem seeti ku la ko defal waaye ku bëgg li nga xam ne lii moom nga bëgg bëgg a dox dox nga xam ne gii moom laay dox daal nga des ci ak nga des fi ak man meneen ne lii ndigal la loo xam ne lii sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jàkkaarloo moom moom mu Rasuul wax ko ko ne ko léegi loolu nga leen di wax bu ko defee eh, ñi nga xam ne ñi mën nañ fee toog ñu toog fi nekk yow ci lii nga war a dox waaye ñi nga xam ne ñi dem jàng rek lañu gis bu ko defee ñoom itam ñu mën a dem seeti fi woo xam ne fii fa la ñuy jànge su ko defee mbokk yi kon dañu xam ne almuridiyatu tariqatun assasaha cheikhul xadim bi iznin min allahi taala bi muxaatabatihi sirran fasda bi ma tu'maru kon ñu xam ne li ñuy wax ak muridisme aw yoon la woo xam ne wii xaadimu rasul moo ko sos ginnaaw bi nga xam ne bi waajuram génn na àdduna waaye sos googu nga xam ne gii nag da ko sos yoonu murit wi mi ngi jóge ci ndigalal yàlla subhanahu wa taala comme na ma leen ko waxeen fee nga xam ne yàlla dafa waxanteeg moom ci secret ne ko fas daa bi ma tuumaru maanaam biralal li nga xam ne di moom laa la digal moo looloo taxan mu daal di sos yoonu murit kon nag ab tënk ci lan mooy yoonu murit dal mooy wahiya tarixatun suufiyatun islaamiyatun tajdidiyatun taquumu alal imaani wal islaam wal ihsaan yoonu murid daal mbokk yi aw yoon la wax ne bii tasawuf la maanaam tasawuf mooy al ihsaan mooy rafetal nga xam ne day doon yoon woo xam ne bii ku koy dund lépp loo xam ne lii maanaam moom la lislaam di digle loola ca nga war a nekk waaye lu muy tere yit da nga war a bàyyi loola waaye yoonu murid mbokk yi bi ko sëriñ bi sos da ko def yoon woo xam ne bii ci biir lislaam la bokk mu doon loo xam ne lii doonul loo xam ne lii da koo sos muy lu bees di wuteeg lislaam wala muy lang ak lislaam waaye ci biir lislaam la bokk waaye nekk loo xam ne lii fekk na ne lislaam am na lu baree bari loo xam ne lii ràppan na ci ci jamono yooyee loole sëriñ bi bëgg maanaam yeesalaat ko ci alxuraan nga xam ne yoon woowu nga xam ne yoonu beesal la kon day taxaw ci ak gëm yàlla bu wér nga xam ne nit ki day kennal boromam xam ne yàlla rek moo man moo sañ moo xam lépp waaye tamit nga doon ab jullit boo xam ne bii dangay ngay bokk ci lislaam doon jullit bu wér wér di jaamu yàlla te jaamu yàlla ko nga di ko teg ci al ihsaan te mooy boole ko ak rafetal rafetal gi nga nag mooy da ngay jaamu yàlla te lépp loo xam ne lii lu neexut yàlla la loolo nga di ko moytu su ko defee lii daal ci tënk mooy yoonu murit dañuy wax aw yoon waaye ak ak beesal la maanaam beesal islam la ndax booba lislaam bi toll na foo xam ne fii doy na waar lool ci mu doon loo xam ne lii lu ñu war a yeesalat la dana it yoon wi itam euh, wa tad'u ila ixlaasil iradati lillahi wa tajridiha euh, mimma siwaahu dana it al daal aw yoon la woo xam ne bii day wo teg ku mu mën a doon koo xam ne kii yaa ngi koy dund nga war a jublu ci ak sellal goo xam ne gii bëgg gi nga xam ne kii moom nga bëgg yàlla maanaam day sell lool doo boole yàlla ak lenn doo ko bokkaale kenn doo ko bokkaale ak dara waaye tamit sa bëgg googu muy sa nammeel googu itam danga koy wéetal setal ko ci lépp loo xam ne lii euh, lu dut yàlla la wa in haadul himmati fi talabi mardatillahi baadal mubayaati wa suluki ala yaddi murabbin kaamilin bu ko defee leneen itam da ngay daal di war a yëkkati say itte yow taalibe bi bu fekkee ni ab taalibe nga eh, ci sàkku lépp loo xam ne bii ngërëmal yàlla la waaye tamit loolu ngay doon mu di taalibe maanaam da nga koy def ci ginnaaw bi nga xam ne bii jaayante nga ak eh, ab sëriñ boo xam ne bii bu mat sëkk la boo xam ne bii mën na laa teg ci yoon woo xam ne bii maanaam moo lay mën àggale ca yàlla yaquduhu bil ilmi wal ibada nga xam ne kooku nga xam ne kii moom ngay jébbulu day doon boroom xam-xam boo xam ne bii ku xam lépp loo xam ne lii luy àggale nit ki ca yàlla la mu di la ko jàngal waaye tamit di la wax doon ab jaamukatab yàlla boo xam ne bii lépp loo xam ne lii la yàlla digle ci jaamu yàlla rek moom moom moo da cay taxaw waaye ca soññ ngay taxaw ca jaamu yàlla googe wayu rabbihi ala tarkil aada tey sëriñ boobu dafa war a nekk koo xam ne kii yow taalibe boo jébbaloo ci moom lépp loo xam ne lii aada joo xam ne ji dëppoowut ak sharia dëppoowut ak Seydina Muhammad kilifa boobu dala ko war a aaye dox sa diggante ak moom wayu saayiduhu ala tazkiyati nafsi yi te boobu dafay war a doon koo xam ne kii dalay dimbali ci lépp loo xam ne lii maanaam luy sellal sa bakkan la wa tathiiri ruux yi ak lépp loo xam ne lii day laabal sag ruux wa taxliisihi minal akraari wa rasail tey day doon sëriñ boo xam ne bii dalaa war a jéem a génn ci lépp loo xam ne ay nax nax la ak ay caay caay yoo xam ni maanaam nekk na ci sa xol mu doon ay rag bi xol ba tey ci laajo laajub soxna si rek muy astafay dafa dugg ci tam boo am solo boo xam ne bii da dul neex a tënk rek ndax boo ci duggee rek dootoo mën a tënku waaw mu xaw a jéem a yaatu su ko defee loolu mu doon laaj nga xam ne waajuru xaadimu rasul moom wérduti wérdu eh, xaadiriya la doon jëfandikoo te xaadimu rasul itam jamonoy waajuróom yi waajuróom wi dund wérdu woowu la doon jëfandikoo léegi léegi dañuy xool nag aseyxul xadim wala awrad eh, sëñ Tuuba ban taxawaay la masa am naka jëkk ci wérd ne ne min shababihi xatta irtixaalihi ila jiwaari rabbihi taala lam yataxalla xattu an istimaali wirdi eh, xaadimu rasul dañ ne bi mu doonee waxambaane wu dëgër ba ni mu fi jógee dem ca boroomam subhanahu wataala maanaam wàccab liggéey dene maanaam mësta tàggoo maanaam mësta dañ nekk koo xam ne kii ku jëfandikoo wérd la kon naka jekk gis nga ko ca jamonoy waajuram mu ngi doon jëfandikoo wérdu xaadir waaye tam bi fi waajuram jógee ba mu sos yoonu murit wi itam terewut am na ay wérdu yoo xam ne moom lay doon jëfandikoo naka jekk ba lim doon dund lépp daal ba ni mu wuy ji boromam ne ne musta ñàkka jëfandikoo wérda ne fa fi xayaati walidihi alkarimi axasa anhu al wérda alxaadira ne ne gis nga jamonoy waajuram moom mu ngi jëlan ci waajuram boobu wirdu xaadir woowu di ko jëfandikoo wastaamaluhu muddatan tawilatan nee na itam wirdu xaadir woowu jëfandikoo na ko diir bu yàgg-yàgg wa jaddadahu ala cheikh yi as kamara nee na bi fi waajuram jógee sax nag it wirdu xaadir woowu ku ñuy wax as cheikh as kamara dem na ci moom maanaam mu yeesalaat ko ko maanaam joxaat ko ca ndigal summa ala cheikh Sidiya baaba bi Mauritania tey beneen diggante amaat na it jamono joo xam ne jii dafa demaat ci Euh, Sidiya Baaba moom nga xam ne nii gànnaar la dëkk maanaam mu yeesalaat ko joxaat ko ndigalal jëfandikoo du xaadir woowu nga xam ne bii moom la doon jëfandikoo waan xayrihima te it am na it ba tey muy doxaat ci jamono lu xaw a yàgg dem ci ñeneen ñoo xam ne ñii maanaam dafa sàkkuwaat ci ñoom maanaam ñu jox ñu yeesalaatal ko ndigalal jëfandikoo wérdu woowu yaqulu cheikh mu bayinan istaamaaluhu al ngirdal xaadiriya nga sëriñ Touba mi ngi wax ci ay waxi boppam ay bëri yoo xam ne ni ma ngi cay leeral jëfandikoo gi nga xam ne kii moom la doon jëfandikoo wérdu xaadir woowu yaqulu ahmadul xaqiiru jidda ak tuubawiyul xaadiriyu wirda gis nga ne ne wax jii mu wax ni ne al ahmadul xaqir jiddan ahmad mi nga xam ne mii ko xeebu la xeebul lool lool daal mi ngi wax te ne maanaam bi muy wax euh, dafay wone ne moom ak tuubaaw yi maanaam mi dëkk tuuba alxaadiri yu wér waaye nag kuy jëfandikoo euh, wérdu xaadir la nga kon wax jooju nga xam ne ni da ko tàmbali mu doon tàmbalee bu wax mu daal di fi wax fi mu dëkk te mooy tuuba tey dafa daal di leeral wax fa wér di nga xam ne lii moom la doon jëfandikoo jamono yee wa axasal wirda chataliya an cheikh ibnu muhammad ibnu hamd nee na ginnaaw ba jël na wirdu chataliyu di ko jëfandikoo jële ko ci sëriñ bii ñuy wax baba ibnu muhammad ibnu hamd wa axasal wirda tijaaniya te nee na it doon na jëfandikoo wergu tijaan gis nga kon cheikhul xadim gis ko jëfandikoo na werdu xaadir jëfandikoo na wirdu yi jëfandikoo na wirdu Tijaan waaw bu ko defee sëñ bi jëfandikoo googu mu doon jëfandikoo yetti wirdu yu ca la waxa ne jamono yi daal ñett ñi ñooy samay ñoo doonoon samay sëriñ daal ne mashaayixi sayyidunal Jilaani wa Chazaliyu maahu Tijaani nee na samay sëriñ daal ñooy a sayd abdul xaadir al jilani xam nga mooy borom wirdu xaadir ci moom lañ ko jëlee wa chazali ak imaamu chazali ci la jële wirdu chazali wa tijaani ak ahmad sharif ak tijaan yi mooy borom wirdu tijaan woowu ne ca jamono yooyu mooy jëfandikoo wirdu yooyu daal ñii ñoo doon samay sëriñ wa taxaddasa cheikh an hadihi al marxalati al jawlaaniyati ne na jamono jooju nga xam ne jii moom la jëfandikoo Eh, yetti wérdu yooyu nga xam ne da doon wëndeeru nag di dox nga xam ne booba am na lu muy seet da caa waxtaan ne walam azal mun sa aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba ne ne nag Sayxul Xadim ne ne mosuma dañ bi ma yeewoo di jëfandikoo sama xel ne ne mosuma dañ benn yoon di sakku loo xam ne lii ca lay xame yàlla waaye te mosuma dañ di tuubal sama borom fu ma mën di nga xam ne dem naa ba sam xel ñëw ma xam ne yàlla rek moo fi nekk dañatuma di sàkku lépp loo xam ne lii luy tax ma gën a xam yàlla la waaye itam dañatuma di tuubal sama borom foo mën di nekk ngir sama xol boobu mën a sell ba leeri xam yàlla man caa tàbbi mu daal di ne fa jultu baynal ulama wal awliya binniyati wa amali wa xawliya ne leen looloo sooban ma doon wëndeelu ci diggante borom xam-xam yi ak waliyu yàlla yi ci am yére ju sel ak jëf joo xam ne ji jëf ju sell la waaye tamit boole ko wax yoo xam ne wax ju sel la kay laa yodia umur yi ataaba li xusni zannin xaada li xaada li ixtisaaba loolu nag maa ngi ko doon def ngir dama bëggan sama dund gi nga xam ne gii moom la ma yàlla may lenn du ci sangu doon coonaam neen te loolu maa ngi ko tegan ci sama njortu lu rafet loo xam ne lii njortu rafet loolu daal ommatalan na ma ak jaamu yàlla gu sell gu wér goo xam ne gii maanaam mucc naa ci ci loolu ma doon ragal ci maanaam sama dund sànku doon coonaab eh, kese xatan saraftu ama ay sachin ilaa xidmati xayril alamina zil ela nee na ci loolu laa sax ba at mi nga xam ne mooy ay sachin te atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay ga mu ne ci laa di daje sama sang muy Seydina Muhammad mu feeñu ko euh, ma nga xam ne bi ma dajeeg moom euh, ci at moomu ci la at mi nga xam ne mooy at mi nga xam ne mooy at mi mu jaayanteeg yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam daal di bàyyi wi yëpp wérde ya nga xam ne yee moom la doon jëfandikoo ngir yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ko daal di wutal wérdu ba nga xam ne bii moom la war jëfandikoo loolu lay wax ne wa fi ay sachin aamil mubayaati bi madinati tuuba sarraxa cheikhu taalluqahu bin nabi sallallahu alayhi wasallam bil mubayaati dane ci at moom nga xam ne mooy aama ay sachin dane ne at moom mooy at mi nga xam ne mii ci la jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom nee na loolu mu ngi ameen ci dëkk boobu ñuy wax Touba Mbakke ci la sëriñ bi leeral nañ ñu ne moom léegi daal maanaam digganteem ak yonente bi daal maanaam mënatul fee jaarale kenn léegi daal euh, jébbalu na ci yonente bi jokku na ci moom ba maanaam amatul lenn loo xam ne lii mënuntu ko doxale digganteem ak yonente bi wala kenn koo xam ne kii day dox digganteem ak yonente bi daal di wax moom aadama rasul ne ubaayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa dana tey jii daal maa ngi jaayante ak yonente bi nga xam ne bii moom la yàlla subhanahu wa taala tànn mu doon ki ko gënal te it euh, jaayante googu may jaayante moom maa ngi koy teg ci di ko fas yéene liggéeyal ci bépp liggéey boo xam ne bii bu yàlla ci moom la teyit loolu maa ngi ci sukkandiku ci di ñaan yàlla subhanahu wa jaayante gi nga xam ne gi moom lay jaayante moom te fas ko yéene liggéeyal maa ngi ñaan yàlla mu may ma eh, nu ma ko mën a motulee zalitu abidan xadiman li rasul min ami ay sasin ila ami rahil daa di ne moom xadim rasul mu wax ne man day toroxlu naa wàcc naa sama bopp doon ab jaam boo xam ne bii jaamab yàlla rek laay doon dootuma doon jaamab kenn wala leen waaye itam damay doon ab taalibe ci sama sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que yónnee saxal di ko liggéeyal te loolu mi ngi tàmbalee ci at mi nga xam ne nii moom laa jaayanteeg moom te muy junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn ya nga xam ne mooy atam jaayante na ne loolu ci laa fas sax ba kera may sangoosu ba kera may wujji sama borom. dégg nga ne baadal mu baayaat intaza annabiyu salaa sallam minhul awraada thalathata allati kaana yastaamiluha suma abxaa lahu alqurana wirdan ne ne nag ginnaaw bi mu jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ne eh, cheikhul xadim ne yonente bi dafa rucci mboolem ñetti wérde ya nga xam ne moom laa doon wérde moom laa doon wérde daal di jël alxuraanul karim jox ma ko ne ma léegi alxuraan yow mooy sa wird te ne gis nga alxuraan jooju bi ma ko joxee maanaam ne ma mooy sa wird léegi dama ko dama caa daal di ubbeku ubbeku woo xam ne bii rek maanaam doy ba àgg foo xam ne fii yàlla may ma ci ak jagle ak ak leeral ak i may yoo xam ne bii rek maanaam doon loo xam ne bii lees mën a leeral la bu ko defee sëriñ bi mi ngi wax naan cheikh mouhamadul bachir mooy wax lii ma bëgg a wax su man tasaaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa aataahu qur'ana wirdan lee mu ne bi mu jaayante yonente bi dafa rocc ci moom ñetti wérde yooyu yëpp nga xam ne moom la doon jëfandikoo jox ko alxuraan muy wirdam moom la cheikh mouhamadul bachir mbàkke mii gën a leeral daa ginnaaw bi mu jaayante yonente bi daal eh, wérdu yëpp yi nga xam ne moom la doon jëfandikoo Seydina Muhammad da ko rocc ci moom daal di koy desalal alxuraan mu nekk wirdam loolu muy wax ne léegi alxuraanam mooy wirdam moom xaadimu rasul ci lay wax ni ne kitaabuhul azizu saara wirdi wirdan lii kitaabuhul wa nafaa anni idaayatu raa kitaabuhul azizu saana wirdaa kitaabuhul azizu saana saara kitaabuhu al-azizu saara wirda liya lii wa nafa anni idaaya turra me ne téere mu tedd boobu daal muy alxuraan karim léegi mooy sama wird te it eh, bi mu doonee sama wird dàqal na ma sama yéppi noon zahara li anaati saamam bil kitaab wa bi mustafa huwa sawab xaadimu rasul ne daal leer na man nañ ñi léegi ne daal eh, jàpp ci téere bi yàlla bi ak xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne lii mooy njub gi nga xam ne lii ku ci aw rek yaa nga jëm ci yàlla ndaa dine uaahidullaha ala ahli kitab bi xidmatin lil mustafa baabi sabab ne ne kon maa ngi diggeek sama borom yàlla subhaanahu ci jàpp téere bi bañate tàqali ko moom waaye boole ko ci boole kook bi liggéeyal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy bu buntab lépp loo xam ne lii ak njub la daa di waxaat ne baana li kulli man am na anna wasilati huwa rasul daa ne leer na nañ ci képp koo xam ne kii am nam xel daal boo xamee sama mbir ni mu demee nga amam xel te yàlla baaxe la dina leer nañ ñi nga ndungu ne sayduna muhammad mooy sama wasila kon laajam yi am solo yooyu daal rawatina bii nga xam ne bi moo lay laaj ci wérdu xaadimu rasul daal noonu la demee waajuram moom wirdu tijaan wirdu xaadir la jëfandikoo ba nim fi jógee xaadimu rasul moom la doon jëfandikoo waaye du fi waajuram bi jógee it gis nga kon ñii la demee ak wirdu yi nga xam ne yi moom la doon jëfandikoo ginnaaw bi waajuram bi làqutoo kon yeneen laaj yi ci topp mooy laaj yu jóge ci suñu kilifa gi Sëriñ Aliou Njaay mbasu ñu ngi koy seer bu baax a baax di lu kàddu yi nga xam ne ñu eh, ngi koy rodul ci groupe bi comme noonu ñu ko doon waxe rek muy kilifa bu baax bu bëgg lu baax bu rafetam xel gu am xalaat di ñaan yàlla gën ko yàggal ci suñu kanam bu baax a baax kilifa yi nekk ci biir liggéey bi yépp moom dafay laaj xukmum man intaqada wuduuhu asna albaaqiyaati saalihaat sëriñ yu Njaay mbasu dafa laaj ne ki nga xam ne kii dafay julli ba pare waaye bi mu sëlmalee rek bi julli gi matee ba mu sëlmal rek dafa daal di yëg ci bopp ne moom eh, am njàppam toñ na léegi mu a lekk jëm njàpp mi toñ na foofu nan lay def ak ak albaaxiyaatu saalihaatam yooyu nga xam ne yi moom la war a teg ci julli gi maanaam subhaanallahi yam war a wax ak alhamdulilahi war a wax ak allahu akbar yamuy war a wax ak ak yamu cay teg daal ginnaaw ba mu jullee ba noppi ne ne jamono ye moom am njàppam toñ na léegi nan lay def dina mën a continuer ci loolu wala day dem jàppiwaat doog a dugg ci albaaqiyaatu saalihaat yooyu waaw loolu lañ ko cay tontu dañ ko naan laa shay'a alayhi fi dalika yumkinu an yastamira fi albaaqiyaati saalihaat yi eh, duuna tahaaratin eh, gis nga jàpp maanaam julli moom rek lañ ne maanaam bala nga koy def danga war a jàpp soo amul ngantal jàpp te boo doon julli tamit jàpp nga di julli ci biir julli gi njàpp ma yàqu bu boobaa da dagg julli gi dem jàppiwaat doog a ñëw sosaatam julli waaye nag jéem julli nga ba noppi ba wax asalaamualeykum jàpp ma daal di dem daal di toj su boobaa yow mën ngaa toog def say baaxiyaatu saalihaat lépp loo fa bëgg a def rek ci wàllu googu mën nga ko faa def ba sottal ci ñàkk njàpp googu nga xam ne gi dal na la ginnaaw bi nga sëlmalee maanaam yàqu ca dara yooyu daal maanaam jotite kam njàpp dara baat yooyu moom soo yoreem njàpp mën nga koo wax soo yoretam njàpp itam mën nga ko wax diggante foofu nga xam ne fii ci wàllu julli itam nga wax asalaamaaleykum njàpp ma daal di dem du la yàqal yooye mën nga continuer def ko ba jóg su la neexee nga dem yeesalaat sam njàpp su la neexee nga continuer waat ba kera ngay julliwaat su ko defee beneen laajam bi ci tattu day wax ne hal yajuuzu li rajuli at tadxiir day laaj ndax góor mayees na ko mu mën a litt kawaram litt kawari boppam loolu itam lañ ko ñuy wax dañ ko naan dafru shaari jaisun li rajuli maanaam góor day may nañ ko maanaam mu litt karamam kawaram kawari boppam waaye tamit ci ay anam yoo xam ne yi incha allah dinañ ci jéem a am luñ ci leeral ndax li tax ñu ne góor may nañ ko mu lettu mooy xaddis bii ma bëgg a wax an ummi hani in xaalat xadima rasulullahi makkata walahu arbau ghadair ay dafair ne na bi day mas naa ñëw makka ñu gis maanaam mu def bopp ba ñeenti lét kon defee ci loolu buñ ci xoolee xaddis boobu kon day may na nit ki eh, man naa léttu waaye tamit li ñu jëkk waxu mooy bu dee ni loolu lu sax la itam loolee nga xam ne ni moom la yonente bi defal maanaam doon sunna soo xam ne si da koo digle ngir maanaam ñu di ko def muy doon sunna ñu di ca fay kenn ndaxte dane bu dee ni ay lét la deesu ca fay kenn deesu ca deesu ca am bàkkaar itam ndax doonul loo xam ne ak jaamu yàlla la waaye maanaam aada aadala rek su ko defee dafay wax ne wa hazal amru kaana fi urfi zalika zaman maqbulan wa mutaarafan alayhi ne ne nag léttu ca jamono yi nga xam ne ne ne bi da doon léttu boppam bi noonu yii ne dafa nekkan loo xam ne lu ñu xaman la maanaam ñu doon ko def waaye itam eh, lu ñu miinan la mu doonal lu ñu nungu ca jamono jooju nga xam ne jii Euh, moom la ko doon def fa iza ixtalafa al urfu wa kaana al muslimu fi makaanin lam yactadd ahluhu alayhi aw nazaru ila faacilihi ala annahu mutashabbihun bi ahli lfisqi fala yanbaxi ficluhu li ma doon wax nii rek ne ay létt may nañu góor gi mu def ko dañ koy teg ci ay condition maanaam ci ay jamono ak ay béréb aku defiin ne ne su fekkee ne nag yow béréb bi nga nekk ab jullit nga te béréb bi nga ne moom tàmmuñu fa góor goo xam ne ngi day léttu benn wala ñu gis ne euh, képp fii béréb bii nga nekk yow ku fii léttu moom dañuy jàpp maanaam da koy miru ñi nga xam ne ñi nit ñu baaxut lañu ay taxawaalukat lañu muy ñaar wala ñu ne béréb bii nga nekk kat ku fii léttu moom day mel ni maanaam da ngay niru niru lu jigéen ña nee na su boobaa moom duñ la may nga léttu kon gis nga létt yi day tegu ci condition yoo xam ne yii bu dee béréb la boo xam ne bii dañoo gis ne maanaam ñu saay-saay ñu sàggan maanaam ñu jëmut fenn ña ñoom la gis ñu léttu kon yow mi nga xam ne ni ab judit la nga maanaam dañ lay tere ngay léttu ngir ñu bañ laa boole ca ñooñu bu fekkee ni itam dañuy gis ne béréb bii ñu nekk kat daanaka li fi ëpp moom liñ fi aaraw mooy ay jigéen dong la ñuy gis ñuy léttu su boobaa yow jullit bi itam dañ lay tere ngay létt sa karaw googu comme létti jigéen ngir dañuy bañ mu doon ak niru niru lu jigéen ña kon gis nga kon day nekk ci ay jamono euh, ak ay béréb su ko defee ci la ñuy attewoo su ko defee daal kon euh, kii léttu nag su ko defee la cay ak gën a am solo mooy lan la yéene ca létt ya mooy da koy defee rek ngir kawaram dafa gudd maanaam mu di ko xaw a di ko ko sàmmee wala leneen la ci jublu su ko defee lii mu lay wax ni moom lu ci doon rek maanaam bu boobaa nag dañ ko koy tere maanaam bu fekkee da ci nirulu nirulu jigéen ña bu baax su fekkee ni béréb bi mu nekk daanaka dañoo gis ne ñu tekkiwut ne dara ñu saay saay rek ñu jubari ña dañu koy def ñoom ñoo koy def dañu ko koy tere waaw kon bu ko defee ñu jàppe ko noonu rek bu ko defee ne ne wa hada laysa min baabi sunnati wa taabud mene léttu nag bokkul ci sunna donte dañ ne yonente bi na ko waaye doonul ak jaamu yàlla wa innama huwa min itibaail urfi wala aadati waaye dana lañ ci jublu rek mooy na doon ci béréb boo xam ne bii buñ fa xamee ay góor di fa la ñu miin ko nga xam ne duñ ci am leen luñ cay sikk sàkka waaye tamit na doon aada joo xam ne ji dañ ko aada woo ñu di ko def waaye nag du sunna du jaamu yàlla maanaam dafa bëgg wax ne daal desu ca fay waaye itam desu ca euh, amee bàkkaar ci ku ko bàyyi kon wàllum léttu gi daal xam naa ci tënk rek euh, loolu lañ ko ci wax beneen laaj bi ci topp sëriñ mbay jaañ oustaz moo koy laaj dañ koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom dafay laaj xukuman yu xassiru salaata hal ya umm aw yu am day laaj waaw ki nga xam ne kii day nekk ci tukki nga xam ne moom day wàññi julli léegi moom ndax mën na jiite wala dañ koy jiite maanaam bu jiitee lan mooy atte ba buñ ko jiitee lan mooy atteem waaw dañ koy wax ne ko almusaafiru alladi yuxassiru salaata ya ummu wala yu ummu afdal ne ne ki nga xam ne kii daa nekk cib tukki te tukki boobu mayoon nañ ko ci maanaam muy wàññi julli nga xam ne moom buy julli julli ya nekk ñeenti rakka ñaari rakka la koy def dene moom daa war di jiite waaye waree su ko jiite moo gën ci moom maanaam su ko neexee nag na koo jiite waaye muy jiite moom gën ci moom ndax li tax maanaam ñuy bëgg muy jiite mooy moom muy tukki di wàññi julli su jiitee ba julli ñaari rakkaam yooyu mën naa sëlmal ñamu jiite woon continuer daal di seen ak julli waaye moom muy wàññi suñu ko jiitee du sañ maanaam ànd ak imam ñaari rakkaam yooyu nga xam ne yi moom lay wàññi daal di sëlmal bàyyi imam muy continuer déedéet daa war a mottali su boobaa kon te su boobaa maanaam day bàyyi sunna lii sunna mooy day wàññi te maanaam suñu ko jiitee day daal di tënku dootul mën a wàññi kon su fekkee ni day dem ci julli ngooloo su mënee jiite mu jiite mooy gën ci moom ndax bu boobaa dina mën a def sunna maanaam julli ñaari rakkam sëlmal ña nga xam ne ñii ñoo toppoon ci moom daal di continuer ku ne mottali sa julli waaye suñ ko jiitee nag moom dootul mën a wàññi day tënku te imaam jëlay topp ba imaam di sëlmal muy doog a sëlmal te su boobaa ne ne eh, bàyyi na li gënan ci moom ndax moom dafa bàyyi sunna ndaxte Euh, loolu ñu lay wax naan da ngay wàññi sa julli gi boo ne ah man daal damay julli di ko mottali su boobaa maanaam wàññi ga mooy ëpp ab yool ndax euh, loolu lañ la sant maanaam sunna la kon bu ko defee daal kooku daal mënees na ko jiite mën na jiite waaye daal muy jiite moo gën ci moom daal waaw kon bu ko defee ñu jàpp ko noonu rek yeneen laaj ci topp muy jóge ci euh, Pape Babacar Gningue ñu koy ziar moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax moom dafay laaj xukmu xunuut lan mooy ak xunuut ci julli maanaam day laaj ndax euh, bàyyi ak xunuut dina yàq ak julli wala déet waaw bàyyi xunuut maanaam bañ a xunuut du yàq ak julli ndax xunuut nekkut euh, farata ci julli nekkut sunna waaye dañ ko caa sopp rek su ko defee te ci li gën a li gën a bari ci liñ ko gën a seetlu ci liñ koy gën di def mooy jullik suba kon kiy julli maanaam bu xunootut maanaam du ca dara du ko ca war maanaam du yàq ci julli ga dara du ko sujootal du ko def dara maanaam yàqute dara daal xunoot daal ku ko def baax na ku ko defut it maanaam dara du la ca topp la ca toppaatin muy laaj ne kom euh, dafa faral a gis ne dañuy ñaanal ku fi jóge maanaam am néew ku faatu ay lim ab lim ci ay xul huwallaahu ahad mooy laaj nag waaw lim boobu nga xam ne bii moom lañuy ñaanale ki nga xam ne kii dafa faatu am na fu ñu ko yemale ne lim bii la war a doon wala déet loolu itam lañ ko jox mooy ñaanal ku fi jóge mu faatu di ko jàngal ay xul huwallaahu maanaam mën nañ ne amutab limite yow yoway seet rek maanaam la nga xam ne li mën nga ko caa ñaanal eh, nga defal ko ko ca ci ab lim terewut it nag eh, dinañu am ñuy joxe ndigalal ci diw mi nañ ko ñaanal ñeen fukki lixlaas fatiha ñeen fukki lixlaas wala ñu ne nañ ko ñaanal fatiha ak fukki lixlaas ak benn loolu moom lim bu ñu ràññ la ñu di ko digle wax dëgg yàlla fu ñu dem ci néew ñaare ñaari lim yooyu moom bu ñu diglee moom la ñu digle waaye taxul nag ne dafa tënku rek yow bu la neexee ñetti ñetti xul wallaa xul wallaa fukki xul wallaa ak benn ñeent fukki xul wallaa boo mënee téeméeri xul wallaa ak lim boo mënam rek loo ko ca mën a ñaanal maanaam loola doyut kon daal tënkuwut ci rek na maanaam lim sangam lañ ko war a waaye ma nga tënku ci yow la nga ko ca mën a ñaanal rek ci am lim kon yàlla nañu yàlla doole defal tawfiix bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullah ذاك يدعى فتاوى